Abdou Samad Diouf maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay nuyu Soxna Awa. alors ngay coordonnateur euh, mouvement zéro inondation ñu gis ne taw gu métti am na ci samedi gi rawatina jamono ji euh, may wax ak yow daanaka asamaan si neexul mu mel ni taw la goo xamante ne day jur nag inondation ci yenn gox yàgg goxaat yi samedi bi gis nañ ni ca Médina ba ci sax allée Centenaire daanaka bëri woon na loolu ndox nan la ñu mën a jàngatee situation bile donte bëri na ay mbir yoo xamante ne état au Sénégal. taxaw na ci waaye terewul daal day gën di persister. waaw soxna Awa maa ngi leen di nuyu. di rafetlu dalal bi ngeen ma dalal encore une fois ci Rewmi FM. di rafetlu aussi liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def. donc euh, di leen gërëm bu baax a baax bi sant suñu borom. ci euh, taxawaay bi ñu may ñu mën ko taxawu askan bi si lu jëm ci wàllu inondation euh, comme ni nga ko waxee rek maanaam situation bi. démb barki démb ndakaaru taw na euh, taw bu bari boo xam ne bi mu ñëwee aussi am na ci ay gox-goxaat yoo xam ne gis nañ fa ndox mi na fa meloon mais comme ni ma la ko waxee rek euh, la situation est maîtrisée parce que euh, buy taw dana am ay gox yoo xam ne yenn saay yi donc ndox mi dana bari mais boo ñëwee rek deux heures de temps di nga gisaat ndox mi dem donc loolu la ñu gisoon à Médina loolu la gisoon à les centenaire donc am na ay gox yoo xam ne aussi fii ci biir région de Dakar ku fa mel ni ay Parcelles Assainies unité 3 donc am na zone yoo xam ne doxantu nañ fa gis nañ situation bi nga xam ne donc sur ay point bas yoo xam ne vraiment soxla nañu ku leen dimbale ci côté yooyu mais comme ni ma la ko waxee rek euh, danaa taw danaan am mu gënoon a métti ci dëkk bi mais li taw barki demb aussi duñu ko maanaam xeeb mais nag ñu ne rek tamit maanaam euh, indi na problème boo xam ne tey nit ñi mën nañu taxaw ne lii kat problème la parce que nit aussi booy wax dangay wax ak toute sincérité parce que ñun aussi dañoo yàgg ci mbiru inondation xam ko euh, yàlla dimbale nañu ci aussi taxawaay bi ñu ci am lépp luñ ci fas yéene wax rek ci dëgg lañu koy teg kon nag loolu moo tax ma ne la euh, bi mu tawee keroog fi ngay wax tudd muy Médina ak yeneen zone gisoon nañ ne bi muy taw ci moment boobu gisoon nañ ne ndox mi bari woon na fa lool mais mm-hmm. tey boo fa delloo di nga gis ne tey. ndox ma dem na loolu la ñuy wax tension parce que des fois ndox mi dana bëri bëri boo xam ne si euh, euh, quantité quantité pluviométrique bi dina tax ndox mi su ñëwee rek du mun a gaaw a dem na mu war a demee donc ci moment boobu nag donc dina mën na jur ay euh, problème mais nag yàlla dogal na su doxee tuuti rek ay deux heures trois heures de temps boo ñëwee donc dooto gis benn jafe-jafe nit ñi am ko fa. Hmm. donc loolu nag nekk na loo xam ne war nañu tamit jéem a jéem a gën a góorgóorlu voilà ci li nga xam ne moom moo nekk yenn zone yi nga xam ne ba léegi euh, curage yi ñu war a def defaguñu ko te la ko waral aussi ñun ñëpp xam nañ ko donc loolu moo tax daal ma ne euh, pour le moment boo xoolee situation globale bi maanaam la situation est maîtrisée au niveau de la région de Dakar. bu doxee ci ah. yenn euh, gox yi yeneen gox yi daanaka ñoo ngi am ay jafe-jafe ba tey lan moo waral yéexte gi ci yenn travaux yi nga xamante ne daanaka tàmbali woon nañ ko. waa xam nga tey li may wax inondation dafa nekk loo xam ne processus la euh, am na ay gox yoo xam ne donc ñu ngi ci ay jafe-jafe comme ni ma ko waxee parce que y a des projets qui en cours d'exécution yoo xam ne yëpp matagul fa fa mu war a mate hmm. mais tey mun naa la jox exemple dans la commune de Diamaguène si Mbao nga xam ne tey dañoo bokkoon ci gox yi gën a am jafe-jafe ci wàllu inondation mais alhamdulilah tey bu njëkk Diamaguène Sicap Mbao bu tawoon tuuti rek dëkk bi ñëpp am jafe mais dëmb ak ci démb gis nga ne taw na ba fi may wax ak yow nii mi ngi taw mais amagul benn problème majeur boo xam ne tey gisagum nañ ko dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao noonu la mel ak ginnaaw raay noonu la mel ci yeneen zone ci biir Ndakaaru xëy na nag comme ni ma ko waxee sànq problème inondation dafa nekk loo xam ne lu xaw a compliqué la lu xaw a complexe la parce que tey dëkk bi dafa màgg mooy li ma la wax sànq ne ci agglomération bi dafa am ay gox yoo xam ne tey dañu nekk ay sancaan dëkk bi nit ñi yokku donc mu am ay zones yoo xam ne dañu fa tabax te ci biir tabax ba dañoo dukk ci ay xur li ñuy wax des zones non aedificandi donc loolu aussi bokk na ci li nga xam ne moo gën a tax inondation di persister parce que bu njëkk suñu daan wax inondation dañ daan wax ay ginaawraay dañ daan wax ay gunaas dañu daan wax ay jidde caare kaw mais tey dafa transité parce que boo xoolee dëkk bi dafa màggee ci lu jëm ci wàllu Rufisque lu jëm Kër Massar ak yu mel noonu boo xoolee tey fii ci Kër Massar am na ci tamit ay efforts yoo xam ne mën nañu wax ne vraiment c'est des efforts considérables yu nit ñu mën a wax parce que connaissant la situation de Kër Massar les années passées danga daan gis ne Kër Massar problème yañ daan am ci ay jamono yu njëkk ute na ak fi ñu toll nii tey donc moo tax bi nga xam ne le ministre de l'assainissement biñ ko joxe euh, maanaam euh, lenge yi def nañ ay visites yu bari ci biir Kër Massar ci Rufisque ak yeneen euh, gox ñun aussi li nga xam ne gis nañu ko ci ay jafe-jafe ñu xam ne kat li jafe-jafe la waxtaan nañ ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi nga xam ne ñoo gérer inondation mooy le ministre de l'assainissement mooy les services con concernés mooy xam ONAS moo xam la yi wala yeneen services yi nga xam ne xëy na ñoom mooy Ageroute ak ñeneen ay ADM pour ñu seet naka lañ mën a defee yenn problème yooyu nga xam ne am na ci yenn gox ko goxaat ñu xool nan lañ koy jëlee li nga xam ne moom mooy euh, à bras léegi nag ci nawet la ñu nekk ndax moom faw mu am ndax loolu la ñuy ñaan yàlla dañuy ñaan nag xëy na bu ndox mi ñëwee donc mu bañ a jur benn loraange wax nga ko sànq ne am na ay zone yoo xam ne tey fi ñu toll ne ñu ngi ci jafe ma ne la am na projet ñu ngi en te jeexagul am na ñoo xam ne bénéficier guñu ci lu jëm ci wàllu euh, projet yooyu noonu comme fu mel ni Kër Massar Cité Sotrac nga xam ne ñoom ñu ngi ci ay problèmes yu métti sax yoo xam ne at bu nekk euh, danañu am ay jafe-jafe donc ñooñu aussi tamit bëgg nañu nguur gi dimbale leen ci projet yi nga xam ne am na au niveau du département de Kër Massar nga xam ne ADM moom moo ko géré ñu jéem a xool naka lañ leen di intégré ci li nga xam ne moom mooy le programme de lutte contre les inondations mais pour de la daal ne tey ci moment bi ñu nekk nii tey du ñu ne mbir mi lépp yemb na ndax loolu suñ ko waxee aussi dañuy wax lu ñu neex mais nee naa la ne tey dëkk bi dafa màgg li am solo mooy pour ñu xeex inondation dafa am problème boo xam ne tant que wuñu ko mooy le problème des promoteurs immobiliers qui dans des zones non habitables loolu bokkoon na ci lors du conseil interministériel bi nga xam ne def nañ ko jam ñaajo le premier ministre joxe woon ay instruction pour ñu jël yenn gox yi nga xam ne dafa nekk des zones non habitables non ay aedificandi bu ñu nangu kenn di fa tabaxati te maanaam euh, respecté wul li nga xam ne moom mooy euh, li assainissement bi laaj donc loolu nag yaakaar naa ne war na ci ministre de l' assainissement war na ci gën a yokk taxawaay ak les ministères concerné parce que inondation dafa nekk loo xam ne dafa transversal loolu moo tax nag ñun ñu bëgg di ñaan le ministre de l'assainissement ak service yi nga xam ne moo xam muy DESCOS l'administration ñu fexe ba gën a góor góorgóorlu ci zone yooyu nga xam ne nit ñi ñu ngi fay tabax te wax dëgg moo neex yàlla bu ñu fa tabaxee aussi day jur ay loraange day indi ay inondation ci li nga xam ne moom mooy population bi. alors wax nga ko sànq jamono ji may àddug yow euh, mu ngi taw tey tamit mën na nekk loo xamante ne mën na jur euh, leneen ci yenn euh, zones yi est-ce que waruñoo taxaw ci auditer milliards yi nga xamante ne jotoon nañ ko def ci lépp lu jëm ci xeex wàllum inondation fukki at ba léegi. waa xam nga dama ne audit dafa nekk loo xam ne lu lu war la. Hmm. ci lépp loo xam ne rek. dénk nañ ko nit parce que réew buñ la dénkee loo xam ne ñëpp ko bokk nga yore ko war na tamit soo fa jógee ñu saytu xool ndax lañ la dénkoon amu ci ay rëq-rëq wala amu ci loo xam ne ci ay njuumte la pour ñu seet naka la ñuy def pour mën a jooyanti loolu loolu nekkul loo xam ne lu war a mën a poser problème la parce que man jàpp naa ne tey li ñu jot a def ci inondation ci alal suñ ko dénkee ay nit bu buñ fa jógee baax na aussi ñu saytu ko xool ndax réellement lañ leen dénkoon ndax lépp matane nañ ko wala matane matale wuñ ko c'est pas parce que rek audité nañ c'est parce que bu ñu audité rek am na ñoo xam ne dañoo dañoo luubal déedéet nit ki maanaam mën nga ko audité te lan ko nga saytu xool te pourtant la nga doon xool yëpp fekk ne lépp maanaam yemb na rafet na xëy na nag mën nga audité nga dem ba ci biir gis ne am na ci loo xam ne kat ay dëng-dëng la lu ñu war a maanaam joyanti la lu ñu war a jubanti la lu ñu war a réglé la loolu moo tax ma ne c'est tout à fait normal ñu audité xoolaat càmbaraat li nga xam ne moom mooy problème inondation te loolu yaakaar naa képp ku nekk sénégalais waruloo ko mën a bañ sur tous les secteurs parce que loolu la réew di doxee loolu la lépp di doxe ci àdduna kon nag man dama jàpp ne problème bi warul poser problème li am solo tey mooy ñu ngi en pleine hivernage nekk ci benn jamono boo xam ne tey wax nga ko sànq ne am na ay population bi ñoo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe naka lañ war a mën a def nag ba ñooñu ñu seet naka lañ leen di mën a génnee ci problème yooyu nga xam ne moom la ñuy dund tey man yaakaar naa loolu moo gën a am solo fi ñu toll nii tey ci moment bi ñu nekk nii. Mm-hmm. ku ci nekk nag xam nga la la war. Euh, ku ci nekk ci réew mi lañ la dénk pour nga mën a doxal liñ la dénk xam nga ko euh, ñi war a auditer xam nañ ñu ñu def pour auditer ña war a liggéey aussi nañu liggéey yaakaar naa suñu ko defee ci moment bi ñu nekk mën nañu ko maîtriser situation inondation yi ci moment bi ñu nekk nii. nan nga gisee euh, docteur Cheikh Dieng ñu jëlee ca ONAS moom mi fa nekkoon directeur général. waa xam nga problème boobu man dama daan wax sax ne euh, xëy na mënoon na bañ a egg fi mu yegg mais comme nag dañoo nekk ci réew boo xam ne euh, coow li dafay bari ci situation yi mel ni amee mais dama gëmoon ne man li ëpp solo mooy ñu concentré wu ci li nga xam ne moom mooy le problème des inondations parce que là où je parle avec vous même bu doon sax benn famille y a des familles qui souffrent tey inondation dafa indil Sénégal ay problèmes yu bare bare bari ci wàllu économie ci wàllu santé ci wàllu sur le plan social loolu yëpp nag bu fekkee ne nag dafa nekk loo xam ne lu ñu war a régler la dama jàpp ne am na ay détails yoo xam ne waruñu fi nekk di tardeel parce que dama jàpp ne yow sénégalais nga comme sénégalais yëpp dënk nañ la responsabilité ne la lii kat am nañ yaakaar ne yow buñ la ko dënkee lii war nga ko mën a doxal bu ñu la ko dénkee nag ka la ko dénk dem ba ca biir gis ne lam la dénk lam doon xaar ci yow nam ko bëggee woon kat giseewu ko noonu am na nag obligation pour l'intérêt de la population mu fexe ba loolu noonu mu jëlee la fa pour njëriñu Sénégal pour njëriñu askan bi loolu moo tax man ba mu amee bañ ma ca laajee la ma leen wax dama leen nekkat kat l'histoire m'a donné raison hmm. dama ko waxoon ndax connaissant le problème des inondations bokk ci dispositif inondation yàgg ci inondation dama xam nit ku nekk bu ñu la dénkee boo doxalee rek xam nañ fa nga jëm loolu moo tax ba ñu ko dénkee ONAS ci ay kaddoom ci ay doxalinam ki laa njëkk a wax alerte ne leen kii ni ma ko gisee amagul repère te ni ma gisee muy doxee mais bi baax na en tant que consultant expert euh, changement climatique ak yeneen yu ci mel ni aménagement forêt euh, taxawaayam euh, ci wàllum li nga xam te ne mooy inondation xam na réew mi dafa yomb soo soo xëy rek indi say lijaasa rek ñu ne voilà kii docteur la ci lii docteur la ci lii docteur ci lii gis nga dafa am lu ñuy wax expérience in vivo ak expérience in vitro. Hmm. expérience in vivo. dafa nekk loo xam ne dara ëpp ko solo. mooy nit li muy dund li muy yëg. xëy na nag mën na yor ay lijaa lijaasa mais pratique bi bokkul ak li nga xam ne mooy théorie bi ñaata nit ñoo fi yor ay diplôme ñoo xam ne tey boo leen joxee tey boîte mënuñu ko gérer compétence bokkul ak diplôme man je parle de la compétence wax naa leen ne amul compétence pour gérer ONAS mën nga am say diplôme xaw ma noo ko amee ak nan ko amee expert li expert li expert mais la la réalité du terrain c'est autre chose moo tax ba mu amee man leen ni ma gis muy doxee mais gis ngeen la à Saint-Louis bi mu fa demee biñ koy laaj le problème de de de de la lu mu wax c'est à deux cent millions la wax et pourtant deux milliards lañ fa def de financement un DG dama jàpp ne tey bu fekkee ne tey maitriser na li nga xam ne moom mooy problème inondation maîtriser na ONAS lu fa xew bi mu ñëwee y a des petits trucs yoo xam ne tey warul egg foofu di ay erreurs yoo xam ne mu ngi koy def tey nekkul rek erreurs yooyu parce que erreurs yi dafa bari am na loo xam ne sénégalais yi bari comprendre ñu lan moo nekk ci biir a biir biir a biir te ñun aussi nekkuñu fi di faral kenn nekkuñu fi di acharné wu ci kenn ñun on est là pour défendre les intérêts des population képp koo xam ne tu la là pour l'intérêt de population pour faire sortir les population sous les eaux ñun dañuy taxaw jàppale la mais boo ñëwee nag ne tey jël mbiru inondation bu ko politiser bëgg a jël mbiru inondation bëgg ko def mbiru defante loolu dañu ne loolu duñu ko d'accord te problème yi nga xam ne commencé woon nañ ko di am loolu bokk na ci parce que une fois tu es nommé à la tête boo de l'ONAS nga xam ne tey da nga yor structure bu bu li nga war a njëkk a def da nga war a concentré wu ci essentiel seet naka ngay def am benn démarche inclusive fexe ba lépp loo xam ne lu ñu war a jéem a régler la pour ñu génn ci inondation yi nga jéem a def loolu man jàpp naa ne loolu lañ doon xaar ci moom mais nag gisuñu lu mel noonu président de la république dafa am une obligation képp ku mu jox nombre tànk ci réew mi na ko war a doxalee doxalee te dafa am loo xam ne c'est un peu léger man mënuma comprendre le président de la république son premier ministre kan moo mun a am maqaama ñëw wëñ seen loxo ne dàqal diw ci loo xam ne vraiment c'est pas des arguments solides nit ki nag bu la neexee li ñuy wax rek ne ku sa gémmiñ di nàcc doo wax lu loo wax lu baax ci loolu la nekk moom docteur Cheikh Dieng mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nekk inondation di ko dund nekk ci ay jafe-jafe xam lu ñuy dund xam nañu en toute sincérité ce qui se passe réellement ci li nga xam ne mooy le problème de l'ONAS aujourd'hui te lii may wax yàgg naa ko wax te li ma lay wax boo duggee ci biir ONAS nga laajte ñi nga xam ne tey ay techniciens lañ xam li xam xew dëgg-dëgg nga xam ne kii wax dëgg moo neex yàlla fa mu doon jëmee kër gi nekkul lu baax kon nag bu fekkee ne nag le président de la République et son premier ministre dañu jël dogal ne lii la ñu war a def ak le ministre de l'assainissement pour l'intérêt des populations pour l'intérêt des Séné du Sénégal moi je pense que loolu nekkul lenn nit ñi ne léegi nag bu la neexee nga def sa conférence de presse bu la neexee nga oo ñu la neex bu la neexee nga ut say nit ñu dem pour manipuler pour wax mais li xew ñëpp xam nañ ko li ñuy wax ci problème mu oto bi li ñuy wax ci leneen ak leneen mais am na ci ay ay entreprises yoo xam ne ay sénégalais lañ ku mel ni Delta jigéen moo ko moom nekk koo xam ne ku jàmbaare la te muy efficace ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom appel d'offre la ñuy jëlee li nga xam ne moo ci te ma jox la exemple ma jox la bokk lu leer Cheikh Tidiane Dièye bi mu ñëwee le ministre dafay fekk Bicas fekk bi Delta Bicas ak Delta depuis presque dix ans ñu ngi ci secteur inondation di liggéey ak état waaw kon naka la ministre mun a ñëwee di indi ay ay entreprise yoo xam ne moom daf leen fee fekk ñuy liggéey di fi liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu rafet na ñun ñu xam ko kon nag dafa nekk loo xam ne loolu waxu caaxaan la délégage boobu ñuy expliqué mais yor na ay marché yoo xam ne actuellement moo ko yor ay loo un le le le trois moo ko yor actuellement boo demee Mbour délégage moo yor li nga xam ne mooy marché bi mais ñoom ñëpp ay sénégalais ne nga bëgg jël éliminer ay sénégalais ba pare indi ay sénégalais te dafa war a am concurrence majeur ay majeur parce que Delta muy Vicas mais ay majeur lañ il faut que tey bu ñuy jël inondation di joxe ay marché dañ ko war a jox ñoo xam ne am nañu kattanu yore ko mais boo ñëwee indi benn majeur indi indi indi cinq entreprises yoo xam ne amuñu kattan pour mun a gérer inondation mu nekk loo xam ne mën na jural askan bi problème mais le ministre dafa am obligation pour jël ay matuwaayam pour jéem a régler loolu noonu suñ ko deful ëllëg moom mooy wara a rendre compte li nga xam ne mooy la population sénégalaise et nous sommes tout à fait mm-hmm. mm-hmm. xam ne moom le ministre de euh, le ministre de l' assainissement def et da ñun jàppale wuñu ma Samba jàppale ñu ma Demba ci dëgg la ñuy dox parce que dañoo war a rétablir li nga xam ne moom mooy la mm-hmm. vérité. alors waxtu gi daf ñu dab xam naa dinañ am occasion gën a yaatal Abdou Samad Diouf jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay coordonnateur mouvement zéro inondation ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup soxna Awa.